rapport à la situation de notre géo de la la géopolitique du Sénégal. Mm la situation euh, de nos frontières. Mhm. day andi ñaari mbir rek mooy par rapport au, à la situation de de la drogue. Mhm. bi nga xam ni il faut saluer le travail extraordinaire de nos forces de défense de sécurité parce que depuis très longtemps chaque fois ñu def benn liggéey boo xamante ni ces malfaiteurs là ñu ngi leen jéem a arrêté pour ñu bañ a drogue bi mhm. maintenant par rapport <clears throat> à la à l'aspect Euh, am na rôle boo xamante ni le nouveau les tenants du pouvoir war nañu ko jox par rapport à la euh, à la diplomatie. Mhm. parce que je pense que le président actuel am na rôle bu mu war a jouer. Mhm. par rapport à à la CEDEAO par rapport à. parce que Sénégal dafa am taxawaay bu am solo bu mu musoon am par rapport à ces à de guerre à de crise. Mm aujourd'hui Bassirou Diomaye en tant que jeune. war na mën a jouer continuer lekk bi nga xam ni moom la ko Sénégal jox par rapport pour pacifier l' espace de la CEDEAO et régler mm. yenn question yi nga xam ni moom moo subsisté mm-hmm. maintenant nag euh, euh, li xew ci dëkk yooyu mun na bañ a mun mun na bañ a impacter suñu réew yi parce que on a vu que nous ba élection jotee on a su voté tranquillement mm. passer alternance tranquillement xam nga donc euh, tey war nañ mën a jël exemple lu Sénégal par rapport à cette situation. maintenant sur le sur le plan politique euh, il faut que les partis de l'opposition puissent euh, travailler à mm. à s'opposer sur le plan d'une manière républicaine am taxawaay boo xamante ni moom la ñu tax pour per alerter pour que yenn situation yi mën a am par rapport au pouvoir nag les attentes sont longues les attentes sont nombreuses. Mmh. maintenant sur la situation. économique moi je pense que peut-être problème warul mun am du moment où l'actuel ministre des finances ci ñu liggéey projet de loi bi initial ci la bokk. xam nga parce que mu ngi nekkoon direction générale du budget. Mm-hmm. Cheikh Diba était là-bas il était il faisait partie des analystes donc situation warul. mun a am pour une situation euh, de crise par rapport à cette année là. Mhm. parce que bon euh, la masse salariale war nañ ko mun a contenir war nañ mun a fay salaire yi normalement maintenant nag avec la réduction des ministères et autres war na mën a tax ñu ñu dajale yeneen ressources ñu permettre pour ñu mën a pour ñu mën a régler la question des des prix des denrées et autres maintenant nag pour moi. pour moi contrairement au doyen pour moi la population war nañ leen mën a may benn état de grâce de trois mois quand ñu xaar. Euh, <laughs> ñu may leen tuuti benn trois mois. ñu may leen si ñu dem seen déclaration de politique générale. Hmm. parce que aussi foofu la ñuy joxe les grands hmm. axes. amuñu jot waaw donc no amuñu jot certes mais mën nañ leen may ñu bàyyi déclaration de politique générale bi. c'est vrai que quand ils s'opposaient ils avaient dit beaucoup de choses. mais bon euh, les réalités Euh, am na beneen situation boo xamante ni presse bi wax na ci mooy l' état des des des des passeports la situation des passeports et autres moi je pense que par élégance quand même mënoon nañ bàyyi yenn yi ba moment bi nga xam ne dañuy approcher le décret bi nga xam ni moom moo leen ko permettre ñu mun ci voyager quoi. parce que aussi nous sommes dans une république et je pense que l' actuel président a besoin de l' opposition sénégalaise. Hmm. et de l' opposition parlementaire su may wax peut-être doyen dina ko que su amul opposition parlementaire bi motion de censure mën na am. ok donc il faut que ñu cohabiter. Mhm. il faut ñu waxtaan pour que jour bi le premier ministre di dem def déclaration de patrimoine ñu bañ a def motion de censure parce que aujourd'hui la coalition au pouvoir n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. tout à fait su ñu taxawee ci résultat élection présidentielle yi. benn coalition moo nekk pouvoir ñeneen ñëpp dañuy dem opposition donc la taxaw la le pur la bennoo ñoom ñëpp ñu ngi opposition mhm. donc aujourd'hui su nekkee waxtaan amul c'est pas élégant entre eux je pense que peut-être mën nañ poser ay actes yoo xamante ne mën na dem dans le cadre de de de de motion de censure et c'est pas bon pour notre République